dal leen jàmm ci seen boutique Seck et frères da nga bëgg téléphone télévision rajo wala sac yegg si nga Seck et frères am nañu ay téléphones yu rafet ay téléphones de marque waaw ay téléphones de toute marque iPhone Samsung Tecno mani téléphone boo mën ci bëgg yegg si gaaw fii Seck et frères boole ko nag ak ay qualité yu am solo mani te loo si xamul am nañu aussi équipe technique bi nga xamante ni saa bu sa téléphone amee problème boo ko andee fii si sekk et frères ñu daal di koy réparer si ay simili yu néew suñu ay écran plat nag waaw ay écran plat yu rafet de dernière génération Seck et foofu ndax kat am nañu ay table waaw table télé wala sax table salle boo si bëgg daw sil fii gaaw si Seck et frère Seck et ni am nañu aussi ay montre waaw ay montre yu rafet ay montre yu jekk si loxo yu rafet rafet yu nga xamante ni soo ko takkee foo toll dañ lay daal di xool Seck et ñu ngi fii si Yaraax janook marché Yaraax bi suñu numéro téléphone 77 677 80 55 wala 77 042 00 72 wala sax 70 841 15 55 Oi. E aí, lá minha carinha. Olha, bro. No, no, no. But good. tey gis nañ. naaj jërë. naaj. cool kay. fii sama sëriñ la quoi sama sëriñ papa la. dëgg la ci quoi waaw. aywa naa ko. naaj naaj. muy dox. sant te yàlla xam natt si man muy day ànd ak man dama ko fekk gàll quoi mu tiri si ndeysaan parce que kañ dem kañ dem sama copain gars yi ñu foo mais man moom man naanu na affaire yi. non naanu ko c' est la première fois quoi. waaw ah, mais nag Pape gën a lool météo gën a la ko mu daal jàmm. waaw wala. parce que yooyu la mais dama gëj a laal ñaari at nga eh nijaay ñeme nga ko. lii lay saa lii da ngay jël. ah, ah. Oh, mi ngi baax rek. Eh. si xanaa tàll. non non même pas sax yii bu mag la. Ah, yii bu mag la bu mag la bu mag la. xaaral ma conseillé benn affaire nga ñu rek. waaw waaw waaw ci jàmm. Hmm. gaa mag la de. mais ba ñun li ñu dund fii de. li ngeen dund nii. yëfu yàmbar yooyu xamuñu ko. <laughs> voilà ñaari at ñaari at. xëy muusu muusu mu déglu nii nag déglu bax bax bi. kii wóorul dafa am non dafa lànk dafa mel dafa am xel ci biir mi ngi baax rek. waaw amul bul doon ngaaka nag. gën a dig na gën a xóot xel mi. Ah. voilà am mu kii ñaari at dangay dig non pour ragal man la. ma big fa tey. non man lu ma mas game rek dama siy jéem xel ne baax bu ragal loolu. kenn gisu la maa ngi yow rek nga fi dee du ma ko nettali kenn. xoolal bu siwee nii yow la nan la nan la sax. xoolal da nga koy wéngu. bul jàllu lépp ah xanaa la ah mbiib de. lan parce que boo jàlloo lépp. Ah. non du wóor quoi baax. du baax baax la xool bi. nooy. waaw li ci nooy quoi dégg nga. doo nit. ay ruy baax yi wax dëgg dëgg bi. tayla damay rafet. booy booy booy booy booy. boo tayla la ñu. non xaaral xaaral. nanka rek bis ñëwatal ñëwatal. bii maa jéego la gargu bees la. non fii si mu gën a aay de. xoolal bi ñu génne gën dama am tey jii dama kontaan quoi moo tax xam nga nank laay tuuf nii. eh. dese yeneen yu gën a garaaw yi mu war a jël mais foofu monde boobu mënoo fa dem. non man dafa mel ni maa ngi commencé bilimaane sax fu nekk nii. yaa ngi commencé dem beneen ah, nga ne wala. fu mu nekk nii maa ngi mel ni ay ñaari big. Ah. waaw. ah xanaa xamoo yii mu ngi daan dóor fële. yii mu ngi daan laal fële yàgg na. Ah. waaye. kon yow paa bi nga doon nax quoi. <laughs> eh Big. waaw mu ñëw yow gars waay. man dama dëgër bopp quoi ma ma li ma mandiloo yombul li ñett la ñuy teg fii wala ñeent ñeme nga lool. gaynde xëccal mu ñëw maa siy dóor gaynde. ni mu demee noonu yaay man mandi nii de ah pourtant xoolal ay bir. Kaç gün oldu? Aleyh. waaw jógal ñu dem. non man kay manuma jug de. da am daaj nii man sax dama am daaj. maa ngi mel ni ku yenu immeuble Zeyna mais coow jiwul dama koy gérer jógal ñu dem. waaw yëkkati ma kay. ok. xam nga sama daal xaaral. waa ah, kay. waaw taxawal ma ay waay waaw ah, doxal man tey sama papa tey raay ma. donc loolu ma leer yow waxoon nga ma xoolal su ma xamoon da may kalaate. gars yi ma leen di fii de waaw ah, doo ko maîtriser xanaa doo góor yàlla. fu nekk nii. ñu ngi paaxu naajoo. paaxu. paaxu naajoo. man bu ma lekk naajoo de pataas laay laal. waaw nañ dem yox la.